jaajëf maam waali sekk mi ci machine bi mbokk yéen i jaageen jëf ci déglu bi ngeen di déglu rajo Alfayda FM 90 point 1 kaddu gi di jóge ko ci réewam Sénégal ñu ngi ci dëkk bi ñuy wax Kaolack quartier Medina Baye immeuble Cheikh Imam Hassan sise studio Aliou Mamar Lo dal leen ak jàmm si émission langue gi langue gi tey ñu fas yéene làng ak koo xamante ni bu ñu ko tuddee Kaolack yëpp xam nañu ko Sénégal yi xam ko ak benn wàll ci bitim réew Baye Mbaye ñas gën a siiwee ci turu Baye Mbaye Ndeye Cissé sëriñ la ñaari yoon sëti Baye Niass la sëti Seydou Ali la acteur de développement la kuy bay la fekk naa ko ca tool yi ca Jorsang waaye it ku ñu xam la sëriñ la jàngi ni ci bitim réew comme ni ko ñëpp di defee génne ci université bu Qatar am licence ci wàllum luxal arabiya ak chariatu islamiya sëñ bi Niass donte ne ku yëngu ci développement nga mais ku fës nga it euh, ci politique ñu bëri sax dañ la jàppee euh, sànnikati xeer bi yaa ngi dégg wooy wem waaw euh, alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu askan bi rawatina auditeur Alfayda gannaaw bu nuyoo ñëpp di leen gërëm di leen sant ci dalal bi nga xam ne dalal ñu ko fii tey ci Alfayda Euh, ñu ñëw fi rek ngir wax indi suñu xalaat ak euh, indi daal xalaat boo xam ne daal dafay jëmale réew mi kanam. Mm-hmm. ci gàttal daal bu ma ko tënkee loolu mooy nekk suñu kàddu. sa jaww mooy da nga ñu ne daal da nga métti da nga sànni xeer rek da ngay dóor rek. waa dama ñeme dëgg lool. Mm-hmm. ñeme dëgg nag euh, damaa ñeme dëgg ci wax ko waaye ñeme dëgg tamit ci ku ma koy wax ndax émission bii tey nga invité ma. man yàgg naa bokk ci ñi nga xam ne dañuy wax ne bu ma soñoon émission bii dañ koy ubbi ligne bi. Mm. li tax moo koy wax nag mooy dama gis ne euh, dafa yomb rek ñu indi la teg la ci benn plateau nga naan lii baax lii baaxul lii baax lii baaxul te yow sa jëm bopp nanguwoo ko la wax ne que li ngay def baaxul wala li ngay def baax na. kon man saa su nekk damay indi sama xalaat wane na kat lii d'accorduma ci. Mm. waaye noon tamit lay d'accordé tamit nit oo ma ne li ngay def nii d'accord ci waaye na ko teg ci. xam-xam na ko teg ci ay firnde ndax ñun dañuy gëm li nga xam ne moom lay borom xam-xam yi di wax law law sanadu la xaala man shaa ma shaa bu nekkatoon ak délil wala argument kum neex rek nga wax lu la neex waaye bëgg nañ ci émission bi ak lépp lu ñuy jëngatu di ci wax buñ ci yeggee ñu wax ne lii kat fii lañ ko teg wala fii lañ ko teg loolu nag euh, mën nañ ko tuddee sànni xeer ndax sànni xeer benn baat la bu ñuy utiliser ko di ko teg nit ñi mm-hmm. waaye man gisewu ma ko sànni xeer dama gis ne dama bokk ci ñi nga xam ne dañu war a tabax réew mi buñ jëlee benn responsabilité jox ko benn nit dama naan képp koo xam ne wàcc nga ci langue gi di def politique danga war a def benn adresse boo xam ne moom la Cheikh Mouhamed Mamoun defoon mooy ne naam bàyyiwuma sama yoon waaye damaa ñëw ci loo xam ne képp ku ma ci fekk lépp loo ma wax dama koy mbuñ ngir askan bi noonu laa bëgg tamit ñi wàcc ci langue gi tudd ay sëriñ sama maas gi ñeneen ñi nangu ne politique ku ci dugg war nañ la tudd war nañ la critiquer war nañ la wax tamit li nga xam ne gis-gis yi nga xam ne moom la ñeneen ñi am te yow amoo ko waaye man lépp lu ma wax mooy dëgg wala man kenn du ma laal man d'accord ma ci principe boobu ndax képp koo xam ne dama koy tudd tey dafay am mag am rakk. Mm. waaye mag a mag rakkam tudd moo ko te pourtant xam naa ko waaye moom nag dafa am. loo xam ne weer bu nekk wala bis bu nekk dafay jógee ci sama poche wala ci poche askan bi di dem mm. ndax ku njox poste responsabilité am nga fay weer am na ay privilèges yu ñu la defal xaalisu kan la askan bi. Mm-hmm. li tax ñu koy jël mooy dafa am loo lu war loo xam ne dañ ko daf daf ko dañ koo waroog yow. Mm-hmm. muy budget muy lu mën a nekk ñu koy jël di la ko jox di la ci fay di la ci defal ay privilèges kon man nag damaa am sañ-sañ mooy ne bu njëggee ci loo xam ne loo war a def la te defoo ko ma jaar ci sa tur jaar ci sa sant waaye du ñàkk respect du xeer du tamit. Euh, du du du jaay fit mm-hmm. waaye dama yaakaar ne rek dëgg daal buñ ci yeggee dañ ko war a wax. nekkoon nga responsable politique ci benn parti bu ñu xam sax euh, ci ci Sénégal rawatina ci Kaolack nga jógee fa boobu ak tey ca ay mouvement rek lañ lay dégg parti yi lañ ci gisoon ba dugg ca moo ca nekkut wala euh, yaa mënatu topp ci ginnaaw kenn. waaw du ñàkk mën a topp ndax ku topp ku topp ci ginnaaw kenn kenn du la topp. Mm. groupe xar sax bu ñu àndee dafa am ku koy jiite waxuma la ak ay nit waaye bu may ànd ak nit te li tax may ànd ak yow gisuma ko dafay tax tamit damay dellusiwaat ci fi nga xam ne fa laa nekkoon ndax euh, parti politique comme ni ko ñëpp xamee la pour ànd liggéey réew mi la wala ànd jéem a tamit fexe nu ñu indee changement ci lépp loo xam ne mi ngi jumtukaay ci wàllu réew mi la. Mm. bu ma gisee koo xam ne nag bokk ak naa moom gis-gis bi ak bëgg-bëgg bi damay ñëw ànd ak yow liggéey mais ma demee ba gis li nga nekk nii ak la ma waxoon ak la ma d'accordoon ak yow du moom laa gis damay reculer reculer bi nag du ma toogaat jàpp sama ñàmbur damay gis na kat am na beneen yoon te yoon boobu tey mooy yoon bi nga xam ne mooy changer senegal ndax réew yu mag yëpp tey fu mel ni Amérique fu mel ni France gis nañ ne ay mouvement yoo xam ne. Mm-hmm. de citoyens ñooy jug combat ba yegg ci loolu tey. ñu gis na nag parti politique. la ko sosoon ak la nga xam ne moo ko taxoon a jóg dama ko dul gis ci yenn parti yi du yëpp parti boobu AFP la mën nga ko tudd ma nekkoon ci di ci liggéey nekkoon responsable jeunesse communale yëpp jiite ko dégg nga daam ci daam liggéey ak conviction boo xam ne dama ko gëmoon gëm ne kat politique la waaye balaa may dem di jàppale kenn ma jàppale koo xam ne doomu Saalum la doomu Kaolack la waaye ba ma demee ba ci biir la ma doom bañ démb tey ba taxoon mu jëlee ma fa tey tey ña fa jugee yëpp loolu moo leen fa jëlee kon man amoon naa raison. sama raison nag mooy loolu ah gisatu li ma li taxoon ma ñëw daal di ànd ak moom gisatu ko ma ber sama yoonu bopp di ci yëngu. am nga mouvement tey boo xam ne yaa ko jiite muy M2S. mooy lan. Mhm. m mooy mouvement la solution par la sagesse. ñun ay jànkati arab lañ dafa ay doomu daara lañ. bu ñu nekk ci réew mi di dox di xool ba jonosike ba gis na kat réew mi ñu dëkk wala dëkk bi ñu dëkk am na ay jafe-jafe naam mais jafe-jafe yooyu dafa laaj ñu indil ko solution waaye solution ban solution boo xam ne dafay efficace solution boo xam ne dafay xarañ lool gaaw ñu gis na kat am na ñaari baat yoo xam ne bokkoo naag suñu bëgg-bëgg mais bokkoo nag tamit yaakaar bi nga xam ne mën nañ ko fajee muy alxal abral xikma solution par la sagesse ñun en tant que jànkati arab lu ñuy firee xikma mooy faj boo xam ne tey boroom faj médecin bi lu mu jàng-jàng wala lu mën-mën faj dégg nga bu xarañut lool du mën a faj jàngalekat bi lu mu mën a mën a am lu mu mën a mën a mën a jàng tey bu amul pédagogie tey du mën a jàngale ñu gis na nag ñun tey même solution bi ñu bëgg indi du ñu indi solution rek mais dafay ànd ak sagesse boo xam ne ah, naam mbir la ci mbir yàlla yi waaye am nañ yaakaar ne comme ay jaamu yàlla lañ mën nañu jëfandikoo yu mel noonu pour indi solution ci réew mi ci lépp ci jafe-jafe yi. mouvement bi ci Medina Baye rek ci kaw xam ci mim réew. Ah, mouvement bi day mën naa wax ne tey daanaka daj na set région ci Sénégal ndax fi may waxee yow nii mouvement boo xam ne li ma teg nii document la boo xam ne mouvement bi moo ko étudier depuis trois ans. diagnostiqué lépp loo xam ne problème yi Kaolack la région bi naam wolof dafay wax ne bay ci sa wey tànk waaye balaa nga naan naam da nga fay ne danga fay ne mooy lan Kaolack gi ñu dëkk juddu fi yaroo fi yaakaar ko lool dafa sooxe sooxe goo xam ne bari jafe-jafe yoo xam ne ñu suñoon tey balaa ñuy wàlle yaa ni feneen di wax lu xew Thiès wala di wax lu xew mbuur ñi fexe indi solution ci Kaolack ba pare ñi def document xool lépp loo xam ne mi ngi jëm ci Kaolack lépp loo xam ne tamit problème la muy ci wàllu inondation yi mu wàllu ndox mi wàllu mbay mi manque de emploi bi secteur boo xool rek étudier neen ko ak ay boroom xam-xam yoo xam ne bind ci document ba pare indi ci yaakaar bi nga xam ne moom la yaakaar ne moo koy faj loolu nag gannaaw bu ñu defee document ba pare ñu gis ne kat lii Kaolack gi soxla na faju waaye faju bu xarañtale laaj moo tax ñun suñu dox dafa bokk ak ak suñu tur bi ñu uyoo dafa ànd ak suñu bëgg-bëgg mooy alxal abaral xikma faj da faj boo xam ne daal loraange du ci am te dafay gaaw te dafay nekk njëriñ ñeel askan bi loolu daal moo waral suñu yëngatu ba fekk secteur boo xool ci Kaolack tey muy ci ndox inondation bi ñaati mètre cube mooy taw par Kaolack mbalit mi tonnage yi nga xam ne sax moom lay moom moo am Kaolack mu ngi ci document bi personne bu nekk tey ci Kaolack ñaata lay tilimal par jour mu ngi ci document bi walla mbay mi njàng mi lu nekk daal tënk neen ko ci mu nekk loo xam ne tey rarement nga gis tey mouvement bu ko am walla rarement sax nga gis parti bu ko am nga xam ne tey ñun buñ jugoon rek jafe-jafe yi xam neen fu ñu nekk waaye tamit xam neen lu koy saafara. xanaa loolu day tax ñu ne mooy seen programme ne candidat ngeen ci élection 2019 yi. waaw élection 2019 yi de man personnellement du ma ci candidat waaye am naa candidat. mooy sama candidat mooy. le sauveur laa ko tuddee ndax ki war sauver Sénégal mooy Cheikh Hadjibou Soumaré mooy sama candidat te fu wóor laa ko teg mooy gannaaw bi ma jàngatee def ay jàngat toog ak moom waxtaan ak moom mu wax ma xalaatam wax ma projet wax ma document tamit bi nga xam ne la pour Sénégal ñi def échange ma nit ma woon ko sama document ñu bokk ci luñ ñu roole mooy kat borom xam-xam la comme ni ko ni ko liggéeyal na réew mi liggéeyal bitim réew mais toog na ba gis na réew mi mi ci ay situation yoo xam ne rafet na mu dellu si ñëw dimbale réew mi man loolu moom ba ndax man mii comme ni nga ko waxee doomi sëriñ la jàng jàngale liggéey mooy sama wareef waaye tey li tax mu wàcc ci làng gi mooy lan luy olof di wax ne wëñ nga ma nga bañee ca mbanjaxaan ga mooy ne sama gis mooy képp koo xam ne dañ la fal boo demee ba toog ca palaas ba doto waxal ngir asken bi doto jëf ngir asken bi da ngay ndaf lo neex di wax lo neex mene na kuñ fal bo demé tok faté ñala falon ñun nak dafa jot ñu tok ci chaise ba nga xamné ne liñ bëgg ñoko mëna xéxal suñu bop ñu fexé li ñu naqadi ñu fexé jëlé ko fi. kon agibu sumaré ngay wutal parrain. agibu sumaré la bëgga jox Sénégal. ci Kaolack amuma ci parrainage parrainage ñun hmm. nam parrainage man rafetluwuma mako loi bi loi bi. Hmm. ni ni ñu ko doxalee rafetluwu ma ko. déedéet waay bi. waaw do rafetluwu ma ko. bisimilah. man tey ajibu moo ma convaincre ci benn côté moo tax ma ànd ak moom ci parrainage bi nii waaye man jëloon naa en charge ne ko dinaa jàppale te du ma parrainé waaye comme ñaan na ma ko wax ma tamit critères yi tax mu nangu mu bëgg ma ma def yëngatu ci parrainage bi moo tax ma yëngatu ci. ndax dama gëmut parrainage xam naa ne appareil politique la boo xam ne état bi moo ko fi teg. ndax réew bu mel ni France lañ jëlee parrainage ak yeneen réew yu koy def. Mm-hmm. te prétexte bi ñu teg mooy ne Sénégal candidats yi dañoo bëri waa kandidaa yi dañoo bëri ndax parrainage rek lañ ko mën a wàññi am na beneen façon bu ñu ko mën a wàññee. comme ban comme ban mënoon nañoo def parti boo xam ne am nga récépissé toog ñaari élection damoo ñi xam ne yow kat parti boo xam ne la parti de la centre nga. Mm-hmm. mën nañoo bàyyi tamit parti boo xam ne dam nga élection te amoo benn taux bi. ñi nangu sa récipicé waaye liñ ko war a def mooy waruñ ko doxalee nii parce que parrainage tey dañ ne pour wàññi candidature yi la tey na candidature yi ñoo bëri waaye tey ñaat li ñuy financé ci candidature yi dafa bëri ndax li leen di génneel ci ay bulletin de vote gi demee noonu. Mm-hmm. waaye tey ñaata parrainage la la la état bi imprimé. ñu ne am nañ deux cent parties. ci ci ci ay fiches. ci ay fiches pour ñu uti ay parrain. Mm-hmm. loolu kay moog li benn la. bu fekkee deux cent parties yëpp utal na leen ay fiches. ah kon kay utal leen tamit lay benn la waaye. même fii si fii si kay kay bi nekk na jël fukki nit boo ko defoon bulletin de vote yi nit ku nekk benn bulletin lay am. waa mais nag loolu. Euh, loolu waxin la. waaye tey même bu ñu demoon bay teg parrainage tey même état moom mënoon na cee génn na du ci bokk. mu bàyyi askan bi mu bàyyi candidat yi kese ndax comme moom moom mooy mbër mi te foog mu bëree. tey exemple tey bu ñoon dañu wut parrainage ñu ne parti au pouvoir bi amul parrainage ndax dafay boobaa nu muy def élection yi. boobaa du ci bokk boobaa du ci bokk. Ah. waaw mais moom kon kay moom tafar foo su foog mu bëree. Hmm. moom moo war a bëree candidat bi nga xam ne moo war a ñëw tey. Hmm. moom kay mënoon naa wax ne képp ku bëgg a jàkkaarloo man dama nga wuti parrainage waaye déclaré ne moom moom personnellement dafay dafay wut parrainage hmm. ba pare déclaré benn taux boo xam ne ñëpp xam ne ne fi mu ko teg fan la. 3 millions yi 3 millions yi. leer nañu moom mënta ku mënta am sondage boo xam ne.

ci réew mi lañ nekk naam yow journaliste nga am na loo mën a xam waaye man it am na lu ma mën a xam loo xam ne man it fa ma koy xamee ak ñama koy wax tamit ndax dañu bokk ci réew mi nag. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. am na lu ñu mën a xam loo xam ne moom. Mm-hmm. ah duñu wax ne xam neen leb de mais ñun it am nañ ay renseignements yoo xam ne am nañ ay sources yu leer comme ni ñu waxee source A. Hmm. man am na source B <laughs> waaw. mu nga fàttali leen ne laaj yi ngeen di déglu suñu gan tey moo di Baye Mbaye Niass mooy njiital mouvement M2S moom nag kilifa diina la nekkit ku ñu ràññee lool ci wàllum développement dinaa ñëw ci kanam euh, euh, ca tool ya sëriñ bi kon euh, Hadjibou Soumaré candidature am Kaolack bokk na ci juróom-ñaari région yu mu tànn ngir ut fi ay parrain am du juróom du juróom-ñaar régions yi rek quatorze régions yi Sénégal yëpp. waaw mais conseil constitutionnel moom juróom-ñaar région lay xaar candidat bu ne nga am ñaari junni. ñaari signature ci juróom-ñaari diwaan. ci ci biir fukki diwaan yi ñeent fukki léegi kon candidat bi par A ou B mu tànn juróom-ñaari région yoo xam ne moom leer na ko ñu dina ko déposé ma ne sax mbër. waaw ak bu sumaare ndax tànn na Kaolack. waaw na mel ne. Hmm. balaa ma lay tontu loolu juróom-ñaari junni yooyu ñu tànn. Hmm. parti au pouvoir rek démb dégg nga sama maam yi nga xam ne nee na moom ñaata la ut ci biir biir région bi muy Moustapha Niass. Mm. kon loolu mooy mooy loi bi li maye. 2000 signatures ci moom nga nekkoon ne. non nekkuma woon ci moom dañoo àndoon. ci AFP. waaw du nekkoon. AFP kay mooy mu Moustapha Niass. waaw mel ne nekk bi mm. dañoo daje woon ci benn objectif mm. mooy liggéey réew mi. mais nag balaa may jàppale keneen ku dëkk Matam wala ku dëkk ma jàppale ku dëkk Kaolack te loolu moo ci dugaloon ñëpp. te bañ demee ba xam ne ci boppam nekk ñëpp bàyyi nañ moom kese fa des. <laughs> waaw fi may waxee mooy naam région bu nekk 2000 signature lañ la laaj. Mm-hmm. waaye boo fa amee lu ëpp loolu tamit mm-hmm. ça va ñun fu mel ni Kaolack. 2000 mm-hmm. signature la ñuy laaj ci Kaolack waaye ñun ñu ngi ci 5000 signature. pour Hadjibou Soumaré pour Hadjibou Soumaré. Hadjibou Soumaré candidature am. gannaaw moom bu mu ko porté ba pare ay bon volonté ñoo gis ne kat dañoo maar ci homme politique de carrière yi nga xam ne da nekk ci benn parti am ak moom problème wala déggootu leen mu ne la bàyyil nga dem taxaw jàkkaarloog moom mer ngemb yi li fi indi tey président bi loolu la moom moo waxal boppam ne musta am ambition yi président Abdoulaye du moo ko def li mu ko def moo tax mu wut président ñun nag soxlaatuñu loolu dañu soxla koo xam ne Sénégal daf koy ñor dañu soxla koo xam ne dafa bugg a delloo Sénégal ci Sénégal yi démb ci ay valeur ci ay principe mais bu ñu demee tey ba président ci jëm boppam kàddoom si ñuy surtout dara loolu dafa loolu dafa grave ku mel ne bu Soumaré nag critères yooyu moom lañ yaakaar ci moom ak yi nga xam ne tamit ëllëg tey Sénégal du dugg ci guuta dugg ci guuta mooy lan beneen président boo xam ne tey bu fi toogoon tey coow lay indi dañuy fay wante te ñun wax dëgg yàlla réew mi dafa amul joti loolu ndax réew yëpp fi ne dañoo tegu ci woon pour dem. mais sëriñ bi sëriñ bi su li may wax mu ngi ñëw de ne da nga critique lu tax nga tànn Hadjibou Soumaré mënoo tànn yow Hadjibou Soumaré dèjà moom problème bi bi bi njëkk am rek. mooy mooy moom la xale yi di wax toju fenn. Hadjibou Soumaré ñu bëri xamuñ ko daal waa xam nga Hadjibou Soumaré du personnage Hadjibou Soumaré moom la ka du ay kanam ak wala ay jaar wala nangam Hadjibou Soumaré réew mi fu mu toll. Hmm. dafa soxla ku mel ne Hadjibou Soumaré Hadjibou Soumaré moom méngook fi réew mi toll fi mu ne. tey mooy réew mi tey waaw. Mm-hmm. réew mi tey dañuy tudd ay loo xam ne kenn mësu ko dégg mooy fayuwante mm-hmm. naam ni mu melee ni Sénégal tey mu leer na tey am na si ñoo xam ne tey leer na ëllëg mm-hmm. ah li doom am mën naa bañ a am mooy ñaari internat yi jaar. am na nu muy demee mën nañ ko ñàkk te Hadjibou Soumaré nit la koo xam ne diiñ na ci niñ ko gisee wax dëgg yàlla. moom si jëm boppam du politicien ndax moom technocrate la. Mhm. su réew mi nag dañoo toll foo xam ne dañoo soxla. technique technique boo xam ne parce que dafa am lu ñu yàlla may loo xam ne tey dafa te loolu kat dañoo war a indi koo xam ne nit koo xam ne xam-xam lañ soxla tey li ko xam ne moom la Mawlana Cheikh Ibrahim Niass waxoon nga xam ne al ilmu huwa al imam xam-xam mooy njiit. Mhm. loolu lañ soxla. Mhm. naam firiwut ne keneen amul xam-xam waaye fi ñu toll ni tey soxlawuñ politicien boo xam ne dangaa meree ci làngar ak mer gàddu ñëw wala. dangaa ñëw tey pour fay wante wala danga ñëw tey pour indi leneen naam man bokk na ci condition yi nga xam ne moom laa teg mooy tout sauf Macky moo ma gënal Macky man waaye ci biir tout sauf Macky tamit bëgg naa nit koo xam ne ëllëg bu jëlee Sénégal dafay tegu ci yoon boo xam ne ñu naan yoonu raay waaye dafay tegu ci yoonu affaire dafay juur ak naaw ndax Sénégal kat am na signes yi am na ñu ñu baax ñaa ngi fi mag ñi ñaan neen fi yàlla te tamit li ñu mag ñu waxoon démb na Sénégal dina bokk ci réew yi nga xam ne tey ñooy bokk ci réew yi gën a riche ci àddina bi tey signal yooyu am na kon nag dañu soxla koo xam ne dafay am xam-xam waaye tamit dafay dal dañu soxla nit koo xam ne tamit dafay jël Sénégal yóbbu ko ci kaw mais du du delluwaat ginnaaw mooy indi ay fayuwante indi ay xeex indi ay waaso te loolu lañ gis ci suñu réew moo tax ñu tànd Hadjibou Soumaré. te la ci. moom loolu non seulement waxuma la solution waaye loolu ñun suñ jëm boppu solution lañ ci ndax ñun suñ jëm bopp programme bi ñu am ñu ngi ko tuddee suñ mouvement ñu ngi ko tuddee la solution par la sagesse. Mm. kon ñun kan bu ñu àndee tey ak parti boo xam ne solution ak sagesse tey boo ko jëlee nga boole kook parti bi nga xam ne moom la Hadjibou Soumaré amee muy démocrate et républicain ñaar yooyu boo ko ñaar yooyu bu ànd ak solution wax dëgg yàlla Sénégal ci kanam la jëm. ñu bëri ñu ne moom kenn la mouvement bi amul nit. ah de moom kenn mënu ko ñaari moo tax. ñu leader yu bëri boo leen attaqué di nga dégg ku leen tontul mais Baye Mbaye moom boppam rek. mooy woote téléphone wala boo demee jëlee ko moom mooy wax. waaw non man askan bee ma ñor ñor goo xam ne tey. Mm. fépp fu askan bi di jooylu wala di naqarlu man daf may jaral ma déplacé dama. Ah, man parce que amoo ko yónni. deret du mbiri ku ma yónni man askan bee ma jaral loolu man sama téléphone bokkuma ci leader yi nga xam ne dañuy fay téléphone wala ñu koy filtrer man tey mën naa la wax ne àddina bi ni mu doxee xam naa ko waaye bu ma la waxee tey mënumaa filtrer téléphone doo ko gëm. xaw ma nuñ koy filtrer parce que mosuma ko filtrer. askan bi nag dañ may oo guddi di ma oo bëccëg di ñëw ba sama kër ne ma lii yow lañ ci yaakaar. nit dafay ñëw ba sama kër wax ak man nëbbatu guddi na ma diw laa maay doomu diw may naa nga mu diw. parrainage bii tey ma lay wax nii tey am na soxna soo xam ne. jëkkëram wala sax borom këram ci gàttal ci tanoor yi la nga xam ne tanoor yi nga xam ne ñoom lañ yaakaare tey fii ci Kaolack wala ñoom lañ yaakaare ñu ànd ak président Macky Sall dafay ñëw ba ci man ne ma lii nguur gi di doxee li d'accord ci jox naa la sama carte kon man duma koo xam ne mais damaa fexe ba ubbi sama bunt ba askan bi ba bëtam xonqee mu yaakaar ma ci te nag dañoo gis résultat bi nag du am fit du man kenn waaye man du ma tànqam lu soxla jaamu yàlla surtout loo xam ne pour dénoncer ko la man maay taxaw fañ koy xeexee ni ma mënee mobiliser taxawal ay nit noonu laa mënee waaye damay tànn toujours ñëw bokk ak askan lépp lu ñu naxarlu mu ànd naxarlu ko ak ñoom. Hmm. mouvement bu daj sept région ngay ñëw taxaw loolu ba Cheikh Babacar loolu moom. xam naa ne danga ko wax ni en tant que journaliste buy wax rek. di ah, ko wax ñeneen loolu non loolu moom moo ko hmm. parce que loolu. moom moo ko. Ah. parce que Baye Mbaye ñëpp xam ne na moom. Hmm. mouvement m 2 bu xonq bi rek nga daan yooxu maanaam mooy fi raay bi newoon. boo déggaan ñaxtu ci tëli boobu rek bàyyi mbay moo ko moo ko créé bañ ko ñëlaleeg tey fi mu ne kenn xamutul looy wax këri gan ak yu kenn xamul daal maanaam ñu ne daal euh, bàyyi mbay dafa dafa critère kenn mënu ko maanaam lu fees bët mi daal amul boo ko jëlee ci lii rek mu indi leen comme tëli bi xonq mi nga daan jooy ñu mujj koo ñuulal fi mu ne yaa ngi yaa ngi jàmbat euh, këri gan la ko wër. waaw mais buñ tuddee tëli bi xonq boobu tey kay ñëpp waa madina wala waa Kaolack dañuy sant yàlla ne grâce à Baye Mbaye man ñaati yoon dañ may félicité fu nekk ci loolu ak yu duut yooyu tëli boobu kay bu fekkee ni meloon la mel muy ñu xonq hmm. ñu koy tànqamlu ma def fa manifestation ay ay yoon ay manifestation ay manifestation ba ñuulal ko wax dëgg yàlla lu may ti foofu maa nga ca leneen ni moo ko defee ci tëli bu xonq bi noonu laa ko defee ci këru gan ba président ñëwee ne dafay ñëw intégré këru gan te waxoon ñu ne daf ciy def tëli te pareegul damaa taxaw jooytu ko ne loolu mënta ne këru gan duñ ko intégré ndax waxoon ñu woon lii cest dire man ay naxaate ak tamit nax askan bi ak réeree mbir man dama dama dama dama ko xamut sama benn maam daf ma yar ci ne maa ko def te kenn du ko wax barke moom yeggu fa man noonu laay dundee lépp loo xam ne daal état daf ñu ko dégg bu heure bu jotee dafu ko nar a jaar leneen ngir ay intérêt personnel nit man dinaa taxaw même bu dee man kenn sax bu jaree sama bakkan ma joxe ko ndax man damaa jàpp ne man liggéeyal askan bi man jaamu yàlla laa ko def donte ne bu ma neexee tëdd nalaw ba biddanti ndax moo laa naa Cheikh Ibrahim Niass ci barkeem laa amee lépp waaye bët bi nga xam ne moom la doon xool jaamu yàlla yi ne mi ngi xool doomu aadama bët boo xam ne nit du ko xool nit mu ko di ko bañ man kooku mooy sama référence sama critique nag comme ni ma koy waxee toujours mooy damaa nanguwut naxante naxante bàyyi mbay doo ko ci dégg man daal lépp lu may ànd ak nit dafay leer parce que man lépp lu ma dugg balaa jant bi soo ñëpp xam ne ci li laa dugg kon kay lépp lu may dem euh, dafa war a leer. mais balaa ñu lay dégg rek euh, njiitu réew mi di ñëw wala premier ministre. wala lu ñëpp di xaar ci mbir na bu say bi ci mujj mooy bi ñu def lancement officiel lu euh, projet assainissement wu Kaolack tëral ci mbir dana bàyyi tan daanaka ñaari milliards kere dégg nañu bàyyi mbay ak euh, ñi ko nangoo déglu ñu taxaw foo foo premier ministre wala da jàdde yéen a yéen sax yéen a guddeel ngan gi bu bu doonee xamuleen ko woon yi yéen a taxawoon waa ji nangu guddoon a ñëw waaw ñun liñ bëggoon am na te tamit liñ doon dénoncé mujj naa feeñ bu fekkee dañ na askan bi kese moo leen tax wala Kaolack moo leen tax a jóg ndax niñ nam demee noonu la waroon a demee ñëw ba ci ñaar ñoo bokk ñaar ñoo xam ne ñoo ànd bokk benn parti bi ñuy liggéey kenn nangu wut a déglu sa moroom kenn mënta ànd ak sa morom cest dire yii dama koy xam avant xam ne ñii ay naxaatekat la. waaw yow balaa ñu ndaje ma yow ca damaa xam man nee naa la mën naa xam yow loo xamut en tant que man mën naa am sama renseignement généraux yoo xam ne mën nañ maa wax lu xew réew mi dama fi laa dëkk nag euh, Cheikh Babacar. damay jokkook ña ca biir di jokkoog ña ca biti am ñoo xam ne dañ may oo volontairement di ma wax li xew te duur na lu ñu ma wax rek ma ko dama koy gëstu ba am ci lu leer foo ma ko teg mooy lan mënoo ñëw kawlak Kaolack 2016 mën Sarr fay Faye far ba Sarr ne Kaolack balaa 2017 na taal waaw ak ONAS ak ñu ne nga ne Kaolack balaa 2017 dina tàggook assainissement mais la nga waxoon waxuma la commencé mais te woo fa xeer nga toog bañ toll ci diggante six mois quatre mois cinq mois de élection nga ñëw ne indi nga budget boo xam ne quinze mille dix milliards waaye présidence yëpp boppam dool na ci cinq milliards pour projet Kaolack hmm? tànn nag fu la neex nga ne Medina nga koy defisee am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne lii lancement bu ñuy def la dañ koo indi Medina parce que Medina ci ëppale te demeewut noonu Medina saal la am këru gan la boo xam ne état fekk nañu tabax ko ba peinture ko ba raax ko fekk nañu tabax ko ba mu mu ñoo laaj pentre bi pentre ko jëlu ci benn en du courant du ndox du dara te këri mboolem këru gan yim jël yim yim mottali wala yim defar daf koo jël en charge xam neen dafa xew kër gi nekk ci ay problème yoo xam ne am ay facture ndox am ay facture courant. mooy kër résidence Ablaye mooy résidence bi nii nii ñeneen neen teg programme boo xam ne mooy di ko luye yenn cérémonie yi. pour mu nekk njëriñ pour ñeel kër gi. ndax kër gi dafa laaj entretien dafa laaj defar dafa laaj facture dafa laaj facture courant ñu jël salle bi di ko luyee man gis naa ñu ko luyee ay yoon yoon di ci def ay cérémonie dégg nga. mais cérémonie ñoom ñu ñoom ñu luyee ko en tant que bu def ci cérémonie boo xam ne ñu pour réew pour askan bi la ñu ñëw foofu di def fa indi fa ay pancarte ak ay t-shirt ak ay di tëgg di sabaru. loolu dañoo wane ne ñoom mën na lañ respecté wut ñoom seen jëm bopp lañ respecté wut ndax bu fekkee chef gouvernement premier ministre moo mën a ñëw ne noppi leen ñu bañ na du noppi. Mm-hmm. gouverneur ne noppi leen ñu bañ na duñ noppi. Mm-hmm. kon ñooñu ñooñu kay. ku ki nga kan la ñuy déglu. mooy ne sabotage moo leen tax a jug li ñuy tax leen tax a jug du loolu ñun nag lii laa xamoon avant lii laa xamoon am nañu ci bëri xamuñ ko ni ma ko xamee nii xamee uñ ko noonu dañoo jàpp na lii dañ koo jégle indil ko Madina maa ngi dégg yow si jëm bopp sax nga ne Madina am na ci deux milliards. Mm-hmm. waaye mel na ndax assainissement bu ñu indil Kaolack yëpp ñu ne quinze milliards. Madina deux milliards la ci war a am. Mm. Medina Baye te Medina Baye ñoom xam nga lan lañ koy considéré bu ñu ne Medina Baye mooy section bi. waaw ah. Medina Baye Fass Cheikh Tidiane Daar Rahmati. Ah. ak lo tuuti ci Saam. Ah. ak sax ba ca Tabangoy loolu yëpp dañ koy boole ci kii Medina. Hmm. te man li ñu wax ne 2 milliards bi nga wax nii ak man la ma dégg Amadou Ba wax ko mu nekk ci document bi. Hmm. lancé ko ne budget 2017 2018. Hmm. projet assainissement bi nga xam ne dañ ko def ci 10 régions. Medina Baye 1 milliard la ci am. kon tey boo ne ma tey 2 milliards. wala ma dégg ku ne ma 15 milliards man dama xam ne ay nax la mu ngi mel nag. man man man dama lay jox firnde. dama lay jox firnde man sama information. benn bi maa ko teg ci benn sortie boo xam ne. honorable député Serigne Mouhamed Khoureyssi moo ko defoon exclusivement ci Alfayda. waaw ginnaaw bu ñu étudier. mbir mi yóbbu document bi assemblée ba loi bi woote ko mu woo fii directeur Alfayda ñu jël ko en direct mu wax ñu assainissement bi dina bàyyi mooy li premier def si woon. Mhm. wax ñu xaasatan cëru mi dina bàyyi bi ne daanaka ñaari milliards la ñaari milliards yi dama ko arrondir na la deux milliards. mais mhm, presque deux milliards. beneen bi premier ministre ci boppam Mouhamed Boun Abdallah Dionne bërki démb la élément sonore baa ngi fi discours baa ngi fi dix milliards mooy doon projet bi président yokk ci cinq milliards. ñu cëre ci Medina Baye deux milliards loolu moom xanaa dégg nga ko. man Mouhamed Abdoulaye Dione xam nga lan la ma xam a gëm ko. Hmm. mooy Marème Faye Sall wala Macky Sall waaye lu mu wax pour askan bi duma ko gëm waxutoon ne chaque si mois dina dem assemblée déglu askan bi wax ak ñoom. mu ngi koy def de. kañ la gëj ñaata mois ngi ne damul un an et quelque daanaka mi ngi ci un boo xam ne damut gis nga Mouhamed Abdoulaye Dione lam waxoon Aliou Sall euh, rek euh, ministre ministre d' énergie. ministre. ministre d' énergie. ki mhm. ne ko man président bu ma soxlaa bouton laay ne. daf may bës rek Thierno Alassane Sall Thierno Sall loolu ci loolu la ne. mais nekkul chef de gouvernement boo xam ne wax dëgg yàlla dafay toog di ñu wax loo xam ne dañ ciy dañ ciy teg suñu bët. te ñaareel bi Mouhamed Boun Abdallah Dionne 2013 la ñëw fii def benn sem def fii benn réunion ñëw seet si xalifa bi ñëw ba kër de Kaolack. man mi toog naa ak moom mu ne ma projet Kaolack ak Diène Farba Sarr ci mboobu mu waxal ma ne ma projet Kaolack maquette bi génn na benn bayaal bii nii dinañ ko def projet bi 3D xaw ma wax ma wax yoo xam ne ba léegi gisaguma ci benn benn virgule wala benn benn xeer xam nga man ñooñu seen wax waxuñook man waxuñoo ak yow tamit ndax xam nga li xew beneen sénégalais la ñuy wax bi nga xam ne tey amul sax fu mën a dégloo information ndax ni jamono mel. waaw waaye waxuñ ngir man parce que man du lu ñu ma wax rek ma gëm ko du ñu ma wax tamit ma weddi ko toujours damay nangu ci lii waaye tamit damay d'accord ci mais projet assainissement bi moom xanaa rafetlu nga ko. projet assainissement naa ko rafetlu waaye tey olof daf naan ku la jox añ moo lay dig reer nga mën ko gëm ku ne la Kaolack 2016 2017 dina tàggoog assainissement commencé wuñ mu ñëw ne la indil na la benn projet boo xam ne 2024 la jëm te projet bi. maa ngi yore budget bi nee naa la 2024 la jëm mooy na ñoom dañuy ut lu ñu utee deuxième mandat te tamit du Kaolack yëpp moo leen tax a jóg fi leen tax a jóg mooy xaaxun lañ wax. te xaaxun waaw mooy bërëb yi waaw déedéet Fass Cheikh Tidiane ni muy indonee xaaxun indonee woo ko te man projet bii man sama xalaat. dafa ne Fass Cheikh Tidiane dugg na biir Médina waaw may ma tuuti ma wax la Fass Cheikh Tidiane bi ëpp popularité ci Kaolack tey ci ci la bokk. kon tey xaaxun moom dafa nekk benn échantillon boo xam ne mboolem bëri na état yu fi jaar toujours moom lañ def projet dóorukaay pour du set ma wax ko ñëw ci benn route national nga gas fa benn bassin de rétention dafa dajale ndox ne at bu jot nga defar ko budget laajal ko moto pompe di ko root di ko sotti ci ay géej te man wax naa la ne la loolu au lieu que mu nekkoon tey bassin de bu ñu tuur géej mënoon nekk bassin de boo xam ne dafay dafay nekk valeur ajoutée tey ndax tey toll nañ ci àddina foo xam ne tey ndox mi taw ci àddina bi tey di sonal nit ñi nit ñi dañ koy réserve di ko bayee noor tey Maroc gi nga xam ne moo jege Sénégal xam ne tey ku lekk lëjum wala fir wi amaana genn wàll gi Maroc la jógee xam nga kañ lañ commencé bassin de rétention depuis 1981 lañ commencé def ay bassin de yoo xam ne tey seen ministre de l'agriculture bi tey fan yi dafa gën def benn déclaration ne Maroc bu toogoon juróom-ñaari at yàlla ji tawut ñoom am nañ maîtrise de l'eau boo xam ne mën nañu bay noor ak nawet Sénégal ci foofu la war a jëm mais kenn mus ta gis ndox moo xam ne suñ borom daf koy taw ak riche bi ci nekk li ci nekk ci ressource yëpp ñu jël ko di ko tuuri géej def benn yoon ci benn mbedd matut sax 2000 mètres carrés matut sax hectare te wax dëgg yàlla Fass Cheikh Tidiane gi lu fi tolloog 9 hectares yoo xam ne ndox la man bu ñu ne ma Kaolack moo leen tax a jóg neen parrainage moo leen tax a jóg projet bi góoma ci dara te man lépp lu ma gëmut dama naan góoma ko parce que dama dut dama dut dama ànd ak nit ci ay naxante yoo xam ne ay naxante yoo xam ne da koy tër pour leeral askan bi tey ba élection jot nga toog waajuñ ko defuñ ko dara ñëw ba mu neex leen ñi indi ko fii Medina Baye di lëre nit ñi wane ne dañ koo indi projet bi pour Kaolack waaye Medina Baye moo ci ëppale moo tax ñu luwee bi moo tax ñu defee ko Medina Baye déedéet fu fuñ ko defee amuñ saal buñ ko mën a defee moo tax ñu luyee saal bi def ko fa te saal bi tamit nag man mii de wax naa ne soxla naa ko pour dalal ci Hadjibou Soumaré comme fi mu nekk ni saal bi pour politique la. déet bañ ko jëlee dañoo waxoon na saal bi kat. Hmm. pour réunion la wala pour conférence waaye comme dalal nañ def nañ ci meeting nag man wax dëgg yàlla bëgg naa nag ah, jox njëkk ak teraanga ma meeting ci teraanga la rek premier ministre lañ ci dalaloon defuloon meeting de waaw man futur président cérémonie lañ doon waaw futur président laa ci dalal pour mu ñëw wax ak askanu Kaolack askanu Medina Baye Baye Mbaye Niass euh, moom moo euh, gi sëriñ bi defoon nga fi ab pétition di laajte waa Kaolack ne nañ wax Mariama Sarr ne jógee ci bopp mairie bi yëf yaa ngay doxam waa pétition bi de ñun luñ ci bëggoon am neen mooy benn jour lañ commencé daanaka am lim bi ñu soxla woon ba jël neen suñu avocat yóbbul ko dossier bi tegal ko ko. ñaata ngeen soxla. li ñu soxloon mooy mille signature ci commune bi ci commune bi. sëñ bi loolu motu sax genn wàll genn wàll électorat wu commune Kaolack. waaw may ma wax la tuuti. Hmm. bu ñu soxlaa mille signature hmm. euh, pétition du du électoral mooy mooy nangam da dangay da ngay xool. Hmm. li nga xam ne yow gis nga ne kat majorité la. ndax mille personnes junnee nit yu taxaw ne d' accord ñu ni maire bi di doxalee. ñi taxawoon fii jëlee fi daaw dafay. matuñ mille personnes. moom kay am na ay layam wala kat neex na borom tool li olof di wax ne mën a bay ak neex borom tool du benn. Mariama sar moom mën a mën a mag mën a dem loolu wax ci perdement la. kanaa kay Mariama sar moo neex Macky Sall. ko fi teg wala waa Kaolack. Macky Sall moo ko fi teg. mais Mariama Sarr amul benn waa kawal bu ko Mariama Sarr bu doom xuloo bu doom buntu këram bu fa doon def élection balaa suba ñu génne ko koñom waxuma laa nag kawal ak yëpp. ah kon nu mu def ba gagné maire bi. Mariama Sarr wax dëgg yàlla bu ma soñoon ñu dugg ci leneen parce que man aw ma taay tontu sax ma. di ah, wax ci commune bi nga dëkk di. waaye ci commune bi laa dëkk mais koo xam ne ñëpp kawal ne mënut jéemut waajut te terut moo fa nekk nee naa la suñu pétition bi benn jour lañ amoon objectif bu ñu soxla. Hmm. am ay kilifa yoo xam ne dañoo oo ñaan ñu nañu kat ay appel lañ jot ñun nag ay ndaw lañ waaye dañoo am kilifa suñ kilifa nag bu ñu ooyee nañu kat tëral leen yenn yi wax ak ñun ci benn domaine boo xam ne ah sañuñ ko bañ mën nañoo d'accord ñi tëral ko waaye ba may ñëw sax document bi indi naa ko mi ngi nii ak budget mairie beeg lépp nga xam ne tey région yi taxoon ñu wax ne dañu defar pétition bi moom région bi taxoon ñu wax ne dañu def pétition bi moo nekk nii mooy ne dañoo gis mu defar bit mu am budget boo xam ne lu mu gàtt gàtt mën na trois milliards. Hmm. mu jël deux milliards et quelque def ko ci fonctionnement. Hmm. lu jëm ci wàllu investissement mu def ci à peu près six cent et quelques millions. Hmm. loolu nag euh, ku bëgg a liggéey wax dëgg yàlla góoma ne noonu nga war a doxalee. loolu loolu moom da ko fee fekkam moom la. moo ko waaw liñ fi fekk liñ fi ya am na loolu du ne lu yàgg rek dëgg la du lu yàgg te baax mooy dëgg. boo fekkee lu lu yàgg te boo ñëwee kay da nga koy dindi. waaye loo ñëw rek ni mu daan demee ngay demee hmm. ah lan moo tax ñu tëj Khalifa Sall la ñeneen ni mu daan ni mu daan meer yi doxee noonu la dam doxee lan moo tax tey fekkee kay noonu la kay li yàgg te baax mooy dëgg waaye li yàgg te baaxut du dëgg. nekku leen di yéexam mandat bi li mu këpp de. waa xam nga wax naa la ñun suñu xalaat ñun Kaolack yëpp taxaw nañu maas ne d'accorduñ ci Mariama Sarr <laughs> comme moom meer la boo xam ne ñam ànd ak parti sax d'accorduñ ci moom waxuma la ak na ñu ànd moom parti. lancement bi ñoom def fii tey moom ci yëm boppam ñëwut ndax xam na li ko fa doon xaar ndax ñu ngi woon ci buntu ko koñ bi di ko fa xaar ay waa parti ñu ngi fa doon xaar kooku nag moom yaakaar naa ne jarul sax ñi continuer émission man di tudd ay Mariama Sarr. gënalu ma daal man daal Mariama Sarr li ma koy wax wax naa ko ko prouvé naa ko nee naa ko daal bu dee waa Kaolack ñoo la fal. waa Kaolack signé nañ pétition ne ñoom d'accorduñ ci sa fal gi. wax nañ ko tamit président Macky Sall ne ko pourquoi Mariama Sarr et pourquoi toujours Mariama Sarr. président nag tontooguñu mm. waaye nag am na ñu ñu oo tontuñu lan ñu tontu nag dégg nañ ko fi mu nekk ni moom xam ne ne comme li ci des bëreetut mm. ndax olof dafay wax ne bu tàkkusaan jotee bët set na comme nag fi mu nekk ni léegi bët set moom nañ ko bàyyi ñun fi mu ne amatuñu Mariama Sarr patron Mariama Sarr lañu am ak mooy Macky Sall mais du euh, ànd ak nguur ko gisee surtout ci Medina Baye fan yi moom sa mbokkum Serigne Morali yi dem dem ànd ak gars dafa mel ni ñu ngi dox la de waaw mais xam nga politique moom gis-gis la mm. waaw mais man loolu firéewu ma ko dara dam ànd ak Macky Sall taxul Macky Sall gagné. Hmm. man mii dama doon politique damoon naa ànd ak Abdoulaye taxul mu gagné. kon dam ànd ak Macky Sall. firéewu ah, dara ah ñoom ñii dem dañoo am mbooloo di. déedéet am mbooloo euh, ban mbooloo ñan la kan moo fi am mbooloo. ah Macky Sall jëm boobu amul mbooloo ngeen ko dem ci mu daa mbooloo. Macky Sall ci jëm boppam fi mu ne amatul mbooloo président Macky Sall ci jëm boppam laa lay wax ne liñ naan pouvoir appareil bi nga xam ne moo tax ñu naan pouvoir. Hmm. perdre na ko. ndax mën nga nekk président nag toog ca palais ba waaye li ñu naan appareil pouvoir xam ne lu ñu wax ndax ku xam Ablaye Wade xam ne ba mu ñàkkee nguur gi yàgg na moo nekkoon président nag. Hmm. ndax ay jëfin yoo xam ne ak ay waxin yoo xam ne tey am na ay lobby yu ko tegoon fexe ba jaxase kook askan bi hmm. waaw. Macky la moom toll na foofu ndax fi Abdoulaye tolloon fukki at ak ñaar moom fa la toll ci juróom fa la toll ci juróomi at. mais mais sëriñ bi fii ci Medina Baye tey euh, dox fi dajewul ak euh, kilifa gu ànd ak Macky Sall yombut gis de boo ñu la ci génnee. loolu nga foog. déedéet ay loolu moo yaa ma gën a xam sax. déedéet ah si. déedéet naa laa wax ne. tey léegi bu leen comme comme comme comme comme maa yow bu la neexee mën naa di tudd par kenn. ay leader yu ma tuddee may la la àndal. waaw tuddal. Euh, Cheikh Diallo. waaw Macky Sall la àndal. camarade Cheikh Diallo. sama papa la waaye camarade laa koy. tuddee comme ànd du Macky Macky la ànd ak. Euh, Serigne Mansour Niass. Mansour waaw sama frère la de. waaye Macky Sall la ànd ak. Cissé Deme. waaw moom kay continué del tudd ay tur bi daal alaaji Ousmane Fatim alaaji Ousseynou Niass. <laughs> waaw kooku de moom sax moom laa ci xaw a parce que. xam naa ne sëñ mu sëñ mu sëñ Dame. sëriñ Bouba Niass mu papa Cheikh. waaw loolu firiwut mene. ah sëriñ bi bu pare liste bi gudd menal Ablaye Wade président Ablaye Wade. te bu may lim opposition bi yow rek laay wax. du wax keneen président Ablaye Wade sa président Ablaye Wade ba muy wàcc. Hmm. ñi nga wax ni ñëpp genn wàll gi moom la ñu ak man mii di wax ak yow te terut wàcc na. <laughs> gis nga wàcc moom ànd ajut ci ànd ak nit ñun réew mi naam ay ndaw lañ waaye euh, bu ñu nettalee histoire démb rek Abdou Diouf na mu wàccee ak Ablaye Wade na mu wàccee. mooy siñaal boobu moo dal Macky Sall mi ànd ak amaa nag am yu dem gis ne Macky Sall moo leen doy man loolu aw ma dara lu ma ci compte man Macky Sall doy ma personnellement laa koy wax. Mm. te lii tax du Macky Sall ci yëmb fa moo ma metti mm. doxalinam doxalinam ak Medina bàyyi ba mu faloo ba léegi avant muy falu man tey ka nga xam ne ci moom laa njëkk a déggee turu Macky Sall muy doomi Medina tey. Ablaye Axibu gisatuma sax. Ablaye Axibu la. waaw comme tudd nga ko mën naa ko tudd <laughs> ndax man. ab sëñ bi loolu dafa fi fekk moo tax. waaw waaw man dax man dama ci am lu ma leer. ndax man mii ñëw na jël sama oto ne dafay dem ci meeting Macky Sall. ma jox ko waaw te responsable la jëloon boo xam ne tey mi ngi mi ngi jaay tiitar te boobu oto bu mu war amu ko dem pasi gi di dem ci meeting Macky Sall. te dama gisoon ne ci parti la bokk mën bokk ci parti waaye li ñu boole du parti. Mm. mën nañu politique. mais ku ci nekk ànd ak ku la te terewul ñu xam ne li ñu boole moo ëpp lu ñu tàqale. sëñ bi wéetoo wéetoo ci ci ci contre Macky Sall ci Medina Baye gii. wéetu ma ci wéetu ma ci te taayu ma ci te gëm-gëm bi ma am mooy ne Macky Sall dafay nax waa Kaolack rawatina waa dina Baye. ndax problème yi ma dina Baye am ak yim soxla yi nga xam ne état ci loo koy xaar naam nag man dama bokk ci ñi gëm nañu am na loo xam ne suñu wareef la ñun ndax mënuñu toll rek en tant que mën na bàyyi li muy représenté ci àddina yëpp ñu toog heure bu nekk naan état état waaye nag état dañ koo defal service boo xam ne démb la tey soog a ñëw ndax indépendance ci Sénégal ci jëm boppam suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim daf ci jouer rôle bu am doole te terut ba mu paree tamit daf ko faa bàyyi nekk di liggéeyal yàlla loolu ñi fi nekk ni ay doomam ak ay taalibeem ci loolu lañ nekk waaye moom fayuñ daal naar bi xoromam Medina Baye ba léegi ngeen ne amagut assainissement. Medina Baye li muy représente ci Sénégal ba léegi tey dispensaire la am amul sax hôpital. poste de police ñu ngi koy laaj mënuñ koo am abattoir tey. ministre bi nga xam ne mooy rawal éducation tey mu nekk ministre Sénégal yëpp taalibe la ci kër gi waaye mbokk la ci kër gi. Mm. école bii tey gën dañ koo teg école Medina Baye dañ koo teg tabax tey xëy suba indépendance. ba léegi tey ay bonne volonté ay père de ay parents de parents des élèves ñoom de di finition di rax di peintre mu ci ñaari at école bo xamne ne ngay tok di jàng jàkkaarloog hmm. mënu la def ben xeer mu warona nouveau lycée nekk ci primaire ba légui hmm. mu and ak yu mel nonu man mom lay xex te man amuma ci diko xex ci combat bi man kenn ñi ci nekk dañoo ay professeur ay enseignant ay parents d'élèves ay élèves ñoy di kon man li ma nekk li tax ma ñeme ko mooy ne ñi nekk sama gannaaw ak ñi nga xam ne dañ na ma yow la te man loolu moo mel ni ci politique Cheikh Babacar ñooñu moom bu ñu ñëwatee dañu woo nag bu dafa xal ma lii na ko xaaral ma woowaa Alfayda ne la Ibrahima Gueye yónnee ma nit diw dafa ñëw chargé man nanga parce que ñëpp dañuy jàpp ne kenn yaa nekk déedéet ah. yow xam nga ne man kenn nekk ma fi ah. loolu déedéet ndax yow wax nga léegi ne dajee neen ci ay journée yoo xam ne tey yow sa jëm bopp tey ba nga ma fa jisee tey ba nga ma fa gisee jaaxle woon nga ne lu may ut fii. fokk naa la joosam te invité wuñ ah, ma woon ngir ne personne nangam deret dañ maa tudd tudd la ma fay yëngatu te noonu laa koy defee ci quatre départements yu nekk Kaolack yëpp. fekk naa la joosam daaw ci tool yi eh, ren am nga tool. ren kay man tool man liggéey man gannaaw man sama liggéey kay. Hmm. fi mu nekk nii gannaaw jàng ak jàngale bay la. ma tool damaa nekk baykat. ma baykat ci tur baykat boo xam ne douze mois yëpp laay bay. ja joosam am nga fa bayan nga fa ren. alhamdulilah. nee naa la quatre départements yi Kaolack yëpp. Hmm. département de ñooro hmm. Nioro ngin neew hmm. département de Ndiaffate yëpp am naa fa. tool bu ci commune de Ndiaffate. bu ci nekk maa mën naa la fa wax la ma fay bay ak ña fa nekk ci ay emploi yoo xam ne maa leen fay jël ñi fay yëngatu ak ñi nga xam ne ñoo nekk seen gànnaaw. xanaa daayira yi la. waaw mais daayira bi ci askan bi lañ bokk. kon kay doo leen fay sëriñ bi ñooñu dañu kii rek dañu joxe àllarba ah, am na ñu fay liggéey ngir daayira loolu sama maam ko liggéeyal waaye nag am na ñoo xam ne moom xaw maag sax Paul sax ma nga fa ku tudd Paul. ah kooku du ci waaw kon nag mooy ne liggéey rek ku fi ni liggéey moo ñu boole. Hmm. lan ngay béy. li may bay bëri na bay moom daanaka comme ni ma la ko waxee douze mois yëpp laay bay ndax dafa bokk ci sama liggéey. Hmm. ma gëm na tamit moteur de développement la ci réew mi waaye ni nga xam ne noonu la koy réew mi doxalee ak ni ñu ko soofantalee d'accord ma ci loolu. Hmm. da nga yëngu ci développement boo gisee ay acteurs yu ñëw Kaolack di investir ngir wàllum développement xanaa di nga leen jox loxo nag. waaw mais loolu kay ci loolu laa dëkk maa ngi jëflanteeg ñi nga xam ne développement daf leen a tax a jóg boo xam ne amul politique. Hmm. mais ah, non non am na politique de développement mais am na politique politicien ñi def politique politicien ñoom laa àndut ak. mais ñi def politique de développement maa ngi ànd ak ñoom. Hmm. waaw ndax tey am nga kenn koo xam ne sa xel dal na ne mu ngi investir Kaolack jàpp ko ne li muy def c'est vrai que am na politique lu mu nee néew mais développement mu ngi ci. ah ci kenn da laa ci amoon yaakaar. Hmm. amoon kon tas na. waaw dafa waa dafa dafa tas nag wax dëgg yàlla. kan la man du mën a bu sama sa sama yëf. Hmm. muy euh, euh, Baye Ciss. sa taalibe la de. du sama taalibe sama taalibe maam la. waaw moo tax moo tax muy sa taalibe. waaw loolu de man xam nga sama taalibe nga. sama sëriñ nga sama sëriñ nga moo ko gën a wér. sëriñ bi man sax sa taalibe laa nag yooyu. waaw loolu nga wax ko. Ah. dinaa ko d'accord. Ah. waaye man ma wax la ne sama taalibe la fekk nga jëfal ma lu tax loolu. <laughs> waaw ah, sama taalibe nga daal sama sëriñ sama sëriñ nga daal moo ko gën a wóor. Hmm. waaw El Hadj Ibrahima Gueye yëpp daal suñu suñu sëriñ nga. waaw loolu day. loolu loolu moom loolu laa xaroo li arab di wax ne loolu loolu loolu kemtaane woon ndax. Hmm. Uh, mais def na def na développement lu tax sa yaakaar moom de def na. lu man toujours bu may dugg ci bu may bu may bañ dara. Hmm. du dama koy bañ rek ngir ne diwoo ma neexul wala nangam. Hmm. waaye na muy amee. mbir ma mbir ma na muy amee. te tamit dafa am ay signes yoo xam ne nit moom la mën a def pour ma mën a d'accord ci moom. Hmm. man mënumaa gëm ne ngeen ne taalibe bàyyi nga. Hmm. bàyyi lañ la tuddee ci kër gi nga yoroo dangaa ñëw pour investir pour liggéey Kaolack. njëkkee ko ci Medina Baye. yoon bi nga xam ne moo jugee ci jumaa ji direct nga xotti ko daf ko ay pavage yoo xam ne bu yàlla ji tawee ndox mi du dam mënatu faa jaar. bi jugee foofu jëm rombu Papa Ousseynou Niass yal na ko yàlla yaram romb kër Serigne Aaxabu romb kër Mansour dem ba ca aj ba nga xotti ko noonu bàyyi ko noonu ba tey démb démb ci guddi fa laa jaar. waaw loolu mosul fi am de loolu loolu yokkute la de. waaw mene musu hmm. fi am. sëñ bi bu gàmmu jotaan ñu ne dañu contourner Kaolack. bu musu fi am oto yi duñu mos a ji mënuñoo jaar. waaw mene ah. boo ñëwee ne da ngay defar dara. Hmm. commencé ko bam neex la nga sanni ko hmm. war nga wax taxaw wax ñi ñi kat li tax nga sanni ko lan la ñaata yoon wala nga wala nga leral wala nga dam sax deug mo deug deug deug deug deug mais même tout ma non non duma nangu non duma nangu duma ma nangu ma xam ba pare ngay wax mo mel ni xaw ma lo xam ah, dama ma dem dama lay wax dama lay wax xam nga kaw la commune la mhm. commune bi ñu am ci loxo ñu ko denk waaw ki ngay wax dafa ñëw investir te moom bokku ci loxom ñu ko dénk mhm. yaa yaa fi wax sànq ne mën a bay eh, na neex borom tool waaw ah booy defar ci commune kay te yow ñu ñu dirige commune ba la ngay def di ko def sutur bëggul nga def ko ñu aay la nga ba. déet Madina Baye bokkul ci loolu Madina Baye titre foncier la boo xam ne. Mhm. état ci jëm boppam doole bu mu mën a am. Mhm. tey bu buñ bëggoon a def tey Medina Baye dara hmm. buñ ne ci lañ d'accord négocier ak ñun loolu gis nga pouvoir. mais carte ci commune Kaolack ma wax la. carte la ci commune Kaolack ba mu koy jël nangu ne la loolu moom. Hmm. damay leeral. wax nga hmm. wax nga sa argument. man wax même wax la sama argument. boo ñëwee ci Medina nga ne da koy defar. commencé ko. kanaa bu fekkoon ne waa ji lay aaye balaa ngay commencé la lay aaye. waaye ñëw nga na bàyyi di defar benn affaire commencé ko ba mu neex la nga ne dañ laa arrêté man bu ma sañoon sax comme dañ koo arrêté mu ne moom askan bi lay defar réponse bi dafa waroon a nekk ci askan bi askan bi porté loolu nekko kat comme yow defar moo la tax a jóg. waaye loolu dafa firnde ne am na leneen lu mu bëggoon mooy li mu wane tey ñëw tëli xotti benn tëli def ci ñeenti xeer xëy suba na mairie bi nga soxla man wax dëgg yàlla gooma loolu. Hmm. waaw waa usine bi ci yéen a ko watoo moom xanaa gis nga ko boobu de pare na usine boo xam ne da nga koo defar ba mu pare ngeen ne doo ko intégré fekk président ñëwut xanaa eh, askan bi taxu koo jóg a ah, askan kat mais ne usine boobu daf ko fa Cheikh Tidiane la ko waroon a def kawato gi dafa sori fa Cheikh Tidiane moo fa la ko waroon a def mu jege a ah ah boo loolu boobu waa waa Mérina tax di waaw mais ne bu kabatooki bi am nañu fii am nañu jógee fii ñeneen foofu la ñuy dem jógee Madina dem fa dem kabatooki ak jógee kabatooki jëm Madina ban moo gën a raisonnable jógee Kaolack dem kabatooki ah man gaw ma loolu man kay fépp fu ma am man Madina Baye moom moo ko gën a. mais dem nga ba comme yow da ngay seeti dem nga kabatooge ci usine ba xool ko. usine bi usine daal. Hmm. bu fekkee da nga ko defar askan bi. bu paree dañ ciy jël askan mais defar usine tëj ko ne fekk président ñëw doo ko inauguré. Hmm. bañ toll ci parrainage ay ñaari semaine ñetti semaine commencé nga ubbi ko man ma yooyu daal man xeetu dóor yooyu man dérangé ma man waaw man bokkuma ci ñoom. door nga ko tuddee. ah waaw. sëñ bi candidat nga am ngir laaj mairie Kaolack bu Mariama Sarr noppee comme yaa ngi koy signal pétition. loolu kay pétition euh, ngir yàlla euh, Cheikh Babacar. Hmm. man mën naa la wax ne moom ku moom sax turam daf ma allergie bëgguma ci jaar. waaw léegi ndax candidat nga kon. ngir wutu maire bi fi ne. candidat laa ci maire yi élection yii di ñëw. ci Kaolack incha allahu rabbi Kaolack commune. wala day fekk ni découpé Kaolack na Baye nekk commune arrondissement nga jiite ko. waaw man de candidat laa daal. Hmm. ci Kaolack. te sama candidat askan bi moo ko choisir moo ko tànn. bokkuma ci ñu wax nag ngir ne dañuy wax buñ nee na askan bi te askan yu néew la man. li ma indi ci langue politique yi tey fa ma toog ca fi ma toog di toog di liggéeyal askan bi fa la ma askan fekk ne ma ñëwal responsabilité nangam la ñuy joxe te yaa ñu ci doy. Mm. duur na maa jug dem seeti politique. Mm. section Medina baay bi ma njëkk jiite ci wàllu politique. Mm. ay nit lañ ko jox ci AFP ñoom ñu ñëw ba daagu ba sama kër ne ma ñun kat yaa ñu doy ndax ni la gisee ngay doxal Medina ñëwal nga jiite kon man lol mom lima duggal dugal ci langue du ma ci dugal sama bop ay nit ñoo gis ne sama gëm-gëm ak sama bëgg-bëgg mengok nak. ni nga xamne non lay politique di doxé ñi ñew tànn ma kon tay sama candidat bi tay tamit dama doom jappalé ay nit waye fekk na ma gis ne kat man mar na ci ñi may jappalé ndax képp ñu jappalé bo démé ba tok albatiku au lieu que nga jàppale ñu waye da ngay albatiku nekk ci lenen duñ la jot duñ la gis duñ la dégg. mais yow parce que yow doo ànd ak koy gagné yow moom da nga. critique ah yow comment sa a jàppale mu gagné. loolu kay buñ ko wax xalifa xalifa ñes kay ba muy yegg ci. ah xalifa ñes élection gañu ko de. xalifa élection fallu ko de. waaw mais damay dem pérégu waaw xalifa ñes. mi nga xam ne doomu Mawlana Cheikh Ibrahim la. Hmm. ñoo combat fii ba jox ko mairie bi. mais du élection mais ma waaw mais ma tuuti. waaw bañ toogee ci euh, mairie bi ma toog gis ne kat na muy doxalee ak sama gëm-gëm bokkut mu wàcc ànd mu àndatuma ak moom Madiayna juuf mi nga xam ne tey ba mu nekkee maire Kaolack chargé de élection fii ci Kaolack yëpp man maa nekkoon maa nekkoon maa yore woon de électoral fii ci Kaolack. ci AFP te loolu ci rajo laa koy waxee. mboolem école boo xam ne tey mi ngi woon fii tey ci Kaolack maa fa dem maa yore responsabilité bi ci wàllu électoral bi. kon man kay Madiayna Diouf kay ba muy falu man maa ko yóbbu ci mairie. li tax ma li tax ma génn. Hmm. AFPS loolu sax ci la bokk. Hmm. dañ ko fal jox ko mairie bi. ànd ak moom gis na kat Medina Baye amut cëram bañ demee wax ak moom mu wax ñu ne ñun wax ñu loo xam ne diggante mag honorable député la moo Khoureychi Niass ñun ñu ne ko ne sa diggante Khoureychi Niass loolu yéen seen affaire la waaye ñun en tant ay ndaw liggéeyal parti bi ànd ak yow porté benn combat ba jox la mairie bi ngalbatiku amoo dara loo ñu waxal lu dul ne Khoureychi loolu ñun duñ ci wax. ñun daal dañoo liggéey ba jot ba ba ba ba mu pare dañoo war a jot suñu nar. ci naar wi ci naar hmm. mooy en tant que ay doomu Medina Baye ay doomu Fass Cheikh ay doomu Daara Rahmati mu jël leen ci mairie bi ñi nga xam ne mérite nañ poste mu jox leen ko ñu liggéey loolu nanguwu ko waxoon ay lay ma jëlee sama activité toog delluwaat ci askan bi ba bis ñëw. waaw fi mu ne boobaag tey jàppalaati ko kenn mu mu mu falu. waaw mais bu ba léegi jàppale ko fenn mais ne am na ñu xëccoo Abdoulaye Wade mi ngi dégg nga ne ñaata la ut pouvoir amu ko. Hmm. ñun waxuma la ànd ak nit mu falu waaye ñun kuñ na falu sax nga waxuma la jàppale nit. Hmm. loolu suñu borom may nañu ko dañoo kuñ na falu rek mën ngaa falu ñun. waaw waaw xëy yow tamit. Hmm. loolu baatin boobu am nañ ko waaye dañ ko noo mel ak kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi mel ni yow dëkkee Médina euh, ma tudd ci ku ci mel ne Abdoulaye Mountakha nga xam ne dafa d' accord fii léegi locales yi di ñëwaat décembre 2019 ñu découpé Kaolack Médina Baye am mairie boppam. waaw man de sama gis mooy Kaolack buñ koy wax tey Kaolack bu ñu koy wax tey wax dëgg yàlla Medina hmm. Baye cër bu lëwa law la ci am boo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy Kaolack hmm. ndax am na ñu xam sax Sénégal te Medina bàyyi ci lañ xamee Sénégal wala Kaolack ci lañ xamee Sénégal ndax ni Kaolack mel hmm. ma jox la ci benn exemple moo tax commune bi naam mën naa am waaye man de gisoon naa ne am na neneen nuñ mën a def parce que tamit dina bàyyi dafa buñ buñ ko defee commune boppam laaj na ñu def madina ñu ex ñu am extension au moins boo xam ne dinañ ko taf ci madina gën ko élargir mën a am pour mën a am ay ressources au moins am ay affaires yoo xam ne dina mën a jëriñ commune bi. Mm. waaye daal ci sama gis-gis daal mooy ne ah am naa ci beneen gis-gis li tax am ci beneen gis mooy lan fan yi rek am na benn marché boo xam ne marché international la dafa ñëw pour investir Kaolack. Mm. comme ñëwee def investissement def ay jënd si ko di xool mu ne pouvoir d'achat bu Kaolack yëpp ci Medina Baye la nekk. kon tey te ñoom seen euh, seen liggéey bu ñu def benn investissement dañ koy def ca askan ba ca xole askan bi nga xam ne au moins du ko sori ñu proposé leen benn place fii ci biir Kaolack ñoom ñu ne bu ñu mënta am Medina Baye duñ ko fi def. kon loolu exemple la te entreprise bu mag la boo xam ne tey te loolu euh, dafa dafa leer. tey Medina Baye moom mooy dëkk bi nga xam ne tey facture 2 millions. ci ndox ci courant fii rek la am. Mhm. te du te kër kese la du entreprise du benn kër am facteur deux millions trois millions. Mhm. noonu la mel ci lépp. kon ñoo fi toog di wax di di wax ne Medina Baye ñu dagg ko jox ko cëru boppam. Medina mhm. Baye ci yëm boppam mooy Kaolack. waaw ma Medina Baye daal moo xaj ci Kaolack waaye Kaolack xaju ci Medina Baye. kon dagg gi fi léegi deux mille dix-neuf réew euh, bokkut ak. Euh, waaw man daal du sama gis-gis. duma malgré nag bañuma ko. mais daal man li ma gisoon mooy. Kaolack ci jëm boppam Kaolack la mus di baaxoo ki nga xam ne ñun ñëpp moom lañ yaakaar mu ko dem daan tiitoroo dooxut Baye Niass borom Madina mais Ibrahim Niass al Kaolack yi mm-hmm. mu ñu am fi cosaan am fi lépp mm-hmm. kon tey du ko dagg mën naa am jamono mën na ko indi mm-hmm. waaye daal sama gis-gis daal li tax euh, fond ba tax ñu bëgg koo dagg daal man moom ci laa la d'accord mooy ne am na cër yu bari mënuñ koo am pour ñu euh, beri madina Baye pour mu mën a am dispensaire am opitale boppam am commune boppam yooyu daal gis naa ne daal buñ ci gënee avance daal ba ma am ci lu leer daal mais daal wax dëgg yàlla li ma gis na daal mooy euh, mën nañoo mairie bii daal mën nañ koo jox koo xam ne daal dina liggéey Kaolack liggéey Medina Baye te yaakaar naa nit warta am bëgg-bëgg ne di nga defar Kaolack te booloo ci Medina Baye Hadjibou Soumaré ba mu déclaré candidature am ak tey ñëwaatagul Kaolack dina ñëw waaw Hadjibou Soumaré ba mu déclaré candidature am ba léegi dafa ñëwoon di nuyoo si kilifaam moo ko ko wax te nag kuy war Sénégal di dem kër kilifa diine yi loolu nuyoo la woon pour kër kilifa diine dama waxtaan ak ñoom mais dina fi ñëwaat ñëw boo xam ne spécial boo xam ne tey moo tax ma lay laaj ne këru gan gi bëgg naa ko fa yóbbu wax dëgg yàlla bëgg naa ko fa yóbbu nag dalal ko nag. ne ko fii nag sàlla boo xam ne ñoo ko tabax ñun waa Madina ak taalibe yi. malgré ne président moo ko peinture te man sax bëggoon naa ñu dajale jox ko peinture bu fekkee peinture bi tax or lépp ñu am na dañ ko fiy defee. non non dañ ko luye woon. ah waaw comme location la kay mën nañ ma ko luyee ma def ci sama programme. nga indi ci Hadjibou Soumaré ma indi ci Hadjibou Soumaré waaw duñ fa duñ fa duñ fa sabar nag duñ fa def lu jaatuwut mais nag dinañ ko fa dalal waxtaan ak moom mu wax ak askan bi li mu bëgg a wax ak moom te tamit candidature Hadjibou Soumaré ah Sénégal yi am nañ ci yaakaar ndax fi may lay wax ak yow nii amul benn jour booy toog boo xam ne doo dégg benn kàngam boo xam ne tey ñëw na ci Hadjibou Soumaré pour yaakaar gi mu ko yaakaar ak bëgg ko bëgg pour mu liggéey réew mi. seen mi li ñu ci cëraloon jeex na. maa ngi lay gërëm bu baax euh, ci waxtaan wi ni nga ko nangoo donte ne sëriñ nga mais bàyyi nga moom ma def yëf yi journaliste donte ne yaa ngi ma doon yaa ngi doon galgal ci biir nag ne su ma ne sa sa taalibe laa nga ne ma ah, loolu loolu nga wax. man nga ko ma ko bu émission bi jeexee am. xam nga. Hmm. man fii bu ma fi ñëwee bëgguma fee ñëw mbiri turu sëriñ hmm. ma soñoon sax doo jaar ci ay sëriñ Baye Mbaye Niass ak yooyu danga naan Baye Mbaye Niass ak comme li may wax ndax léeg-léeg ma oote ci rajo bi na Baye kaw la waa hmm. euh, ndax euh, sëriñ moom sëriñ la sëriñ moom mooy kuy jàng di jàngale di teg ci ñu yoon. am loolu laa fekk baax maa ngi ci jëm la ma mën. waaye bu ñu toog di waxtaan ngir li jëm ci askan bi damaa jàpp na rek. citoyen laa boo xam ne damay wax ngir askan bi yow nga nekk kenn ci yi di ma jottali li askan bi di wax. kon duma def lu dul gërëm la. di la sant bu baax a baax di sant Alfayda di lancer tamit euh, benn appel boo xam ne émission bi gàtt na lool waaye bëggoon naa ñu dugal ko ci. Mm. muy yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla sonal na Kaolack nga xam ne tey document bii ma amee tey. li taxoon ma def ko mooy yooyu dañuy màcc bay màtt bëccëg seen sànq émission bi ma dégg rek ne feebar bi nga xam ne mooy dégg nga xam ne ma nga Fatick gi te Fatick mooy Kaolack yàlla nañu yàlla musal lu fanaan Fatick man naa mën naa yendu Kaolack ñaanuñu ko yàlla nag mais jar nañu jël ci ay prévention jar nañu jël ci ay matuwaay ndax yow moom ak euh, picc yi ñooy joxe feebar yi mel noonu te ku ne xam na ne diggante Kaolack ak Fatick. benn dëkk la région du naturel la ñuy wax Sine Saalum. Mm-hmm. mais yooyu tey dañu màtt sax bëccëg waxuma laa guddi. <laughs> te man dem naa ba service de mi leen li tax. pompuñ service d'hygiène service d'hygiène laaj leen li tax pompuñ ñeneen mm-hmm. ma kat amuñ jumtukaay buñ pompé. mooy machine baa fa mm-hmm. waaye poudre bi amu fa. ba man volonté wu naa en tant que man citoyen ak képp koo xam ne bonne volonté nga. ñi jënd produit bi yóbbu ko nee ma bu ngeen indee produit ñun ñu wàcc pomp ko produit yi nag mi ngi nii dinaa ko lancé fi ci ab alfayda mm-hmm. muy loo xam ne dañ ko war a jënd saako bi mi ngi jar 37500 ak liquide bu mu war a ànd ak muy jar 17500 xam nga luy sax dafa jaru sax xaar état pour man mm-hmm. waaw naam mi ngi ci budget bi am na ko mm-hmm. waaye bëgg naa bonne volonté yu mel ni ñun ñu jéem a set lëkkalooyee ngir askan bi mën a nekk ci feex comme ñoom dafuñ ko ñoom nag lépp loo wax nag ñu ne yëguñ ko woon waaye lii moom ñëpp yëg nañ ko bu duur dend beeg tamit problème yi yooyu sibbiru yi muy joxe ndax ñi ñu mënuñoo toog mënuñoo ñàkk toog ci mbedd mi. Mm-hmm. ndax yooyu dafa bëri te dëkk bi dafa tàng. kon nag nen daf seen wareef daf seen warigal li ñuy joxe ci ay parrainage ak yu demee noonu yëpp mënoon nañ koo def ci askan bi ndax ñi ñaa ngi feebar te yooyu màtt guddi di màtt bëccëg ba pare feebar bi ñuy wax dana yàlla ñu ci yàlla musal. deng yàlla nañ ko yàlla dandale ba Fatick googu mu nekk yàlla na fa jugee ndax ñu ne Fatick dañ fay dem. fa la yaa ngi wax Joosoñ Joosoñ ci commune ci ci région de Fatick la bokk. <laughs> kon tey ñu ngi ñaan yàlla yàlla musal ñu ci musal ci senegal yëpp musal ci Afrique yëpp. wa axiru daawaana alhamdulilah rabbil alamin bu fekkee am na ay kàddu njumte yu ci am ci ñun la bu dee am na lu ci baax. ci suñu borom la di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum. shukran laka jërëjëf Baye Mbaye Niass moom nañu dalaloon tey ci seen émission langue gi moom kilifa diine la wax naa ci njëlbéen sëriñ la ñaari yoon sët la eh, ci Mawlana Cheikh al Islam jaare ko ci Baye Mbaye Niass sët la ci Seydi Aliou Cissé ci waajuram eh, bu jigéen bu nga xamante ni suñu maam Fatimata Zahra ñu ngi koy ñaanal gën fee yàgg gën a wér moom mooy eh, maamam Baye Mbaye it def nañu doomi Médine yëpp di def jàngi biti réew ci université bu Qatar la génnee publié woon ci loxal arabe manam langue arab am ci sax l'essence ken la ko yeungu ci walum développement waye nak dafa farlu lo ci walum politique ñop bakke ko ne san te xer la waye de ngeen namu ko laye khalid li mo nekkon ci xarala gi aladi ibrahim mo ñu jàppale ba lépp yembu dig daje beneen yoon bu soobee yàlla